bëm. man yow de lay waxal li fi xew. loolu mooy lan. li fi xew laal ko déggoo. maa ngi koy neex dama ci doon ñam di koy xalam di ca jaay barke <laughs> ko coppe ni ko ca dërëx. man nag mënu maa wax da nga may déglu ma wax la li fi xew waa mbaa ma bàyyi. ok nice mhm. ñu dem léegi dama ne. Mm. ki nga xam ne mooy borom centre bi. mooy moom mooy njëkk a ñëw. Mhm. dalal gan yi wax ak askan wi. ndeysaan ndax nag kër boo fa ñëwee. borom kër ga ci boppam waa la dalalul doo ko sañ waaw dëkk de boo fa ñëwee di nga ni salaamaaleykum borom dëkk ba daal lay dalal mu doole yamul te dégg naa teraanga fii la fekk baax na fii gii ñun toog nii tëngee gii tëngee gii yow loo ci xam ah waaw li ma ca a bari ki ma àndal la <laughs> da da da baax enfant de la face. waaw baax na sinon su su su waxee ba dalal ay ganam. Uh-huh. dinañu benn groupe boo xam ne ñoom ñooy njàppali ngom SF. ñu def naan xaw ma karapiri eh, eh, jaabira wax te dégg nga dégg nga mer ba naan muy démb moom naan ma jaabira <laughs> ak am fit waaw kon na ñëw jaabira man li nga xamee actualité ah waaw damay laajte rek. Ah. information gisoo ni ma lay enquêté nii. enquêteur laa wu naroon a doon di. rik enteur na maa doxaan doxaan gu métti sax damaa bañ a. Ah. rik enteur inspecteur manqueur. Ah. génn nan génn bu yàgg sax. <laughs> mais tey ma laa jox place bi ma waaj a yóbbu di ma dugal ci film rik enteur ma doon fa enquêteur bu jigéen ci lax bañ. <laughs> boobu faaw ma doon leneen fii am na leneen lu ma fi doon di. non ci kanam naa la ko expliqué toj naa fi ah waaw kon musique waaw da ngeen ko tàcc non kaay fii kaay fii kaay fii li ngay def neex na kaay fii kaay fii tàcc waay tàcc la tooy jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup euh, mosuma xam ne mën nga lii léegi xam nga nañuy def maître Ngeuseul dañuy dalal nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di njàppali Ngom et ses frères ndax dañu bëgg fii xumbu ambiance bi tàmbali. lu mu wax. ah moom day moom lam la wax. lu wax. far ya nga am Thiès yëpp limal na ma ko. kan ak kan ah, wax na Ablaye Sow. ah wax na Ndiambé Sène. Eh. moom daal ñoom bëri na sax ay ay ko rusul woon mbaa ma rus baax yi fi toog ñooñu ma fekkalee démb fekk tey ma ne ko dangay dangay dangay bàjjal for <laughs> kon ko day bàjjal ñëpp génn na ak ñoom man xanaa dama doon génne ko dugg rek yow nag ah, kii ya bon neexoo miimal de dégg naa moom a kaw man xam naa ko fan doon fekkante ca tóotóor ma ku mu ku nuyu rek ne nan fekk ca tóotóor mais yow waxuma loolu fekk ma ca tóotóor ma fekk ma ca tóotóor sa doom ji sant Njaay ji fi ñëwoon keroog sa taaw bi tam sant jaay anamu taaw bu sant Ndiaye. waaw. ah man damaa bari taaw de ak maa bëri doom. ak am na keneen ko am na keneen ko ma présenté nga ne moo ci topp mais kooku eh, bala sant. waaw ah yow yaa ngi may sosal de ñooñu. ñooñu démb am na ñaar ñu fi ñëw nga ne ma kii ñaa la sant xaw kii béy. ah ba ñaar béy sekk ñaar man xanaa damay jur di teg rek tamit. <laughs> te nga maa wàcc yow nee nga am nga ñoo fi xamal nettali histoire bu rëy. nanu la may tuuti ngay nettali ko ñëw ñëwal ci loolu. waa kay balaa maa dugg ci say 18. waa d'accord. waaw waa d'accord yow yow bu ma lay attaqué bee moom ma jël sama ma moo gën de waa d'accord léegi. monsieur le maire kañ lay ñëw ma. léegi histoire bi dañ ci ñëw. waaw moom moo doon ñëwoon léegi kenn du xale war saw gone léegi boo xale bi la saw gone ma numbe lu mu lay fay. ah lu at yow da ngaa de dégg nga numbe li loolu moom du ma ci jaar noonu numbe dafa yàgg a réew. man gis nga sama cabine bii ma ne. waaw dama koy seetaan ci télé bi. mais booy boobu fu mu jaar dama fa jaar. man dama koy seetaan de muy nga xam nga loolu. dama koy seetaan fi jooy na ba fee taan nee nañ autorité yi fi mu tax a toog noonu ñu ngi pàcc pàcc ko wax sànq nga ne rek moo ñu soppi moo tax ñoom fi mu waxoo ko sànq. daaru man mosoo dégg ma wax la. ah ok ok da nga di dañ laaj seede yi ndax mu ah, nga rek Ah, dafa bëgg rek laa wax. ah ok waaw léegi on va nag ak yi noonu wax olof. léegi dañuy dalal. waa ki nga xam ne mooy borom bërëb bii. ndeysaan. ki nga xam ne moo koy yombalal. yaatal ñu ko la ko ay at yu bëri. ñun ña festival bi ñaata at ma de mun nga maam. nee na nga ko nee na nga laaj ko. de de de festival keppaaru <laughs> Ndakaaru maam cinquième édition ay waay foofa toj ana ah. quatre-vingt-dix ans dama ko wàññi sax dama koo wàññi sax du ba xale de maam doo jëlaa de ni muy gisee nii waaw li ngay wax yaa ngi ciy seet borom ah akama ko cee seet ah. <laughs> encaisse ko nga waroon a fay kon ni may def nii yëpp boo ko fay maa ngi bëgg ñu ah. bu la dàqee nga xam léegi laaj ma ku may benn benn benn paa bu féroce bu agressif laa fi def. ban la ban paa toog borom say. nu mu tudd kon nga xam ni moo koy gérer fii lay jàpp di bànn bànn lu mais toos <laughs> mais ça va nice <laughs> day bànn xoolal wéngal bëgg bi nii nii lay def ak mu def nii. jàpp toog de ba kenn du moom. <laughs> merci beaucoup. xool bu dikkoon kaay jënd sumpu kaay. ñëwal yaa dikkoon ku ne. waaw léegi doo ko dimbalee après li ci des mu lekk ko. Eh, eh, yow ñëwal fu soobee dee nga xam sax waa kii lu ko dal mu toog di siñ ñi. jóge ba Kaolack ñëw ni yàq ni nga fal nii kaay jëndal kii sump eh eh eh eh, eh Aminata Mbaye jëndal na la sump dégg nga dégg nga am beneen sump jënd nga kaar sump soppe da ngay jënd sump cinq eh soppe wax ay soppe wax ay tey kaw eh soppe wax ay waay eh soppe xaar kaa ñëw xaaral tuuti mais soppe sa kaay xaaral eh soppe xaaral eh daa la ñëw jënd na sump eh eh eh, eh, eh soppe jënd sump téeméer nga téeméer nga joxe rusloo nga dikkoon de. sëgal nga woon dikkoon a ngi toog Diop day jënd. Eh, ne. jox naa la téeméer. yi ma la jox. bu ci nekk day juraat ay ñeenti téeméer maa ngay doon. ah foofa toj foofa toj am ñaari sump nag ñeenti téeméer ñaari sump. soxna jëlal rek autorité yi war na loo lekk sump xanaa duñ jóge ba sa kër la sargal ñu te doo leen na. Arcon am cinq sump la bàyyi ma jaay sump bu ma xañ sama wërsëg yow doo fay. xam naa ma la may def nii liggéey la. ana kan xaaral dootoo jóg ay jënd sump bàyyi ma eh maa la ñoo jënd mënu mbay jóg leen ngeen jënd sump ah dootoo mënumbe ñëwal yaa ngi maa raw e tonton Diack yow tonton Diack la jënd suuf daaree kocc ah, démb ba tey macha allah jiite ñu e e na sump yow e ngay firé yow xuja faal jugal jënd sump jugal toj yaa ngi jugal jënd sump ji xijaaxat ah e doo jënd tonton Diack sump tonton Diack looy suuri nii doo jënd sump ma mais tëgg sa waa léegi wuyu ma toog ci kaw ah lu muy lu muy làkk français préfet préfet jëndoo sump madame Patricia Diagne eh eh eh jënd na sump 5000 sump kooku Mass bu bidéew la tàcc leen ko Mass bu jënd na eh nu ma ñëwee jënd na 2000 sump aja foofa toj ma xañ sama wërsëg bàyyi rek di nga wax di nga wax. préfet xaalis baa ngi ñëw xaaral préfet ñëwagul de. kan la day de du ngeen jënd sumb yéen seen hôtesse yu rafet yi ngeen def ay ni maawa jënd na sumb fukki dërëm maaw yaa ñàkk jëm yow eh yow te ku la ko defin rookin ko ko jëndal sumb ni monsieur le maire waaw ku ne fukk sumb dafa mel su ngeen ñëwul du ma dem de waaw bu Dakar ak ko ku jigéen ki ku jigéen ki nu mu tudd eh, madame Patricia Diagne ti fiyan ti bandira suppu walla ti fiya pat akay préfet nga ñëw ti fiya walla ti fiya pat kii kan la Caana Sarr Sarr ko moom lan la ci ah, ci réew mi kay jëndoo suppu dix mille suppu dix benn benn dix mille fukk ñeent fukk ah déedéet doo ko joxe rek ah, waaw loxoy ko jot day wees dañ may jox mos ngaa gis kuy jaay di joxe te joxe yow xanaa da maa xeeb ah ah ah kon jëlal ñett rek suuf yi la daa daa joxe waaw yow acca acca eh préfet yónnee na préfet yónnee na préfet yónnee na eh, ana Patricia ma ah, waaw rek oyul oyul oyul oyul waaw benn sum waaw ñaar waaw ñett waaw doole doole wàcce doole wàcce nice yeah I'm very very welcome to the ay ko sama pay ko ay very very nice yeah I'm funny yeah I'm funny no kii du ñëw keneen sama xaaral sama xaaral oui ma oui ma oui ma mère Teresa kaay mère Teresa kaay eh mère Teresa kaay bul dem bul dem bul dem bul dem bul dem bul dem bul dem taxawal taxawal mère Teresa waaw man tey sama xol dafa sedd ci yow merci beaucoup ndax xam naa ne ko am fulla nga. Ah, ah. waaw yow bu ñu may gàtt ci ginnaaw xaalis bi lan may ñaanal. wuy ma kaay kaay ah, kaay sama xol sedd na ci yow. merci beaucoup merci am may wax waxoo. yaa may bar arrêté rek doo ñam ci xaalis. aw ma essence jox ma la. aw ma essence doo fay de di kër a dem baa nga fay. alors <laughs> ñu tàcc la bu baax a baax daaru ñu tàcc la bu baax a sama